bala may wax dara damay am mbégte di am contentement ndax li ngeen def dafa rëy moom laa doon wax léegi dangeen ngeen ma fàttali ay jamono ci ginnaaw lii dañ ko féddaliwaat ndax lii lañ doon liggéeyee fu ma dem ngeen yëpp ngeen ànd ak man fu ne ànd ngeen fa ak man lii dama koy am mbégte man nag du ma doomu mbuur rek doomu Sénégal laa ndax fu ma dem ci Sénégal nii lay demee mais jëmm ji taxaw ma bëgg ngeen xam benn affaire bu baax a baax musuloo ma dégg vingt et un ans de carrière ma tuddee politicien làmb génneel ma ko image musul am mais moom da benn jëmm boo xamante ne euh, li ma gis ci moom ak li ma dégg ci moom ak conviction personnelle yi ma am ba tuddee ko làmb ji dafa am lu tax te ci kanam tudd di ngeen comprendre li ma leen di wax kii c'est l'homme de la septième génération ñun duñu ay américain duñu ay tubaab sénégalais lañu lan rek ñu xam mooy teraanga. mais léegi lu la tax bés léegi. Ah. lu la lu bés stratégiquement say façon de faire. gis nga ko naan wa anna lil muttaqiina mafaasan waaw boo ko xamee ci alxuraan doo sonn parce que xam nga borom dafa am loo xamante ne moom moo ko moomal boppam amul doomu aadama du ko def ci nit. ñun nag lii ñuy liggéey ni ku yaakaar ne ñun la yaa ngi juum yàlla la suñu borom. premier face à face Ama balde Modou Lo le 3 juillet stade Bakaaw bu Gambie.